الى جهه ايدها wàllum école bi lée enquête yéen kay ne Serigne Mbaye Thiam day ah kaddu yi nga xam ne kon da koo yëkkati barki dé moo njaay day di xam le ne ñeenti syndicat day bàyyi nañu gereew ba mel na ni nag doom yoo yee daa suqi ay laafam de da koo saral de ah maa la day taali waaw waaw parce que day Serigne Mbaye Thiam waaw ma ne la démb tënga sobin bañ koy laaj nag ci wàllu njàng meeg njàng la bi day danay yeeyu ca yàbbi wu ca débat neex ba mu nekkee nag maanaam ca séminaire googu da koy bañ a yàq daal Zahra Iyane Thiam ci yéen kaay gi waaw nee na yéen ci ay syndicaliste day waaw danoo mbuboo wàllu njàng meeg njàng la mi lée ak école bi waaw di ci régler waale nag seeni problème personnel ak problème politique aa Zahra ne waaw parce que nag xam nga ne yow boo demee bañ lay wax wàllum sa ministre nga naan ministre éducation nationale wan ko ginnaaw loolee bokkul na ci bëgg mu wax mook waa parti am ci laa seeni mooy pare nañu de ngir dox diggante jàngalekat yi lée ak nguur gi ci wàllum l'école bi école boobu réew mi quotidien nee na ca diwaanu Ndar géej Saint-Louis du Sénégal waaw ma la ñi nga xam ne ñoo nekk ca école publique ba nee nañu ñu jàng baax na ba yi nga xam ne kon ñoom ñoo jiite nag maanaam école privée nekk ca ndar googe waaw dañuy génnee kon élèves ya gaaw balaa ñu leen faa fekk di leen joor ay xeer yi day taxar naa si na lool ca gànjaay yéeni kaay gi ne waaw parce que nag ay jàmmaar looyu dar moo doon dox ci diggante kon élèves ya ak gendarmerie ya tey la gis nga mairie ba ca boppam laa la wax waaw élèves ya dañu koo jël kon joor koy xeer daal di koy jaxajaxatee kon daal di koy yaxate daal di toj na ca ca ma am na ci ñetti gendarme yoo xam ne kon am nañ ca ay gaañu gaañu allahu akbar opposition bi day ci waaw nee na ñu dañoo benn bëccëg boo xam ne day manifester rek naxarlu bu baax a baax élèves yi xam ni kon dañ leen a dóor ca Thiès ke ba gaañ leen tamit day na nga tamit day ña ngay yëngal mar day ma ne la gi kay fi mu nekk nii dañ koo wër de ma la ñaari safara ko siix laa la wax ndaxte na ginnaaw jàngalekat yi nga xam ne kon fi mu nekk nii sii su nañu radical biir sax waaw syndicat nga xam ci wàllu wér-gu-yaram gi day nee waa ànd gësëm waaw nee nañu dinañu gësëm wàllu santé boobu ñetti fanu yàlla yoo xam ne kay dinañu ko seen ñaareelu plan la laa la wax yéene kaay gi ne góor gi ne fi mu nekk nii comme que sës na est-ce que du génnee yaba nag fas yéene xeex def loof mar di taali sur quotidien ne en tout cas waa santé googu wér-gu-yaram ànd waaw lu tolloog ñetti yàlla yoo xam ne ko nanu koy gëreew ñaari fan ci weeru mai bii di ñëw lay tàmbali xeex ba moom tàmbali na université bu le quotidien yéene kaay ne ñu directeur ba day dane salaamaaleykum doog étudiants yi ak ñi nga xam ne ñoo fa doon liggéey day daal di koy tuumaal ne day privatisé kër ga boppam université ba Abdoulaye Gaye mayor seen kaddu waaw nee na bu bees bi université bu Thiès moom daal ay mbokam rek la nekk fii di leen signé contrat waa Bambey waa Diourbel waa Touba waa Mbacké ñin ñi nga xam ne ñoo dëkk ci Thiès gi mu foral ñu tegee ñu fee loolee luy ndeyam Moustapha Gaye directeur université ba waaw nee na ay maître chanteur la ñu ba ma ñëwee ba léegi nii lañ dëkkeeg man ñu ne dañu waay ñu daal di dugg comptable ba jaxate ko yàqate ko sàcc ticket restaurant ñu ne leen ni ñu sàcc fa ñaari million kon ci suñuy koppar ay séquestré tamit kon personnel ba dëkk mu waay jamono joo xam ne école baa ngi tos ak wàllum santé wér gi waaw politiciens yi day nga seen parrainage ba ba léegi ni lee sur quotidien ne gis nga loi parrainage googee waaw ak li opposition bi ne danañu dem na kon cour de justice bu CEDEAO ak ak ak yelleefu doomu ya cour africaine ba waaw opposition bi fii ndam la fee jël la mais ñoom opposition day waaw démb daal ba nii waaw loo ëpp waaw nee nañu fi nii may wax ak waaw am na benn million un million de carte d'électeurs yoo xam ne ñu ca école nationale de police ay meeru ñu président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar APR ci la ko tijjee yéene waaw nee gis nga loi constitutionnelle bi waaw conseil constitutionnel sax mënu ca dara waxoon tumalaak nag abanxaas bu bokk ca CEDEAO yéene ma jamba jaa ngi ne ko président mais opposant yi gis nañ leen ñu teg leen loxo ay nit ñu doon manifester ñu dóor leen ba maara di taali alluntin dem na ba ne lii ma ne la wóorul gestu nañu daal ay bagaay de rue daal l'observateur ne Ousmane Sonko day waaw tey ma wax leen nag tuuti moom am na lu mu rawee ay gaayam de ku jar a xel tam da cax maa la wax ma ne la Ousmane Sonko ngeeg ay atu a ko fasaa il est éloquent maa la wax ba pare tam lu wax xam-xam la il est pertinent waaye tamit day fa mu tegoon tànkam ba léegi soppeekul mukk déterminé yéene kaay gi ne moom lobs waaw ne njiital Pastef mi suñu ne xëy kee jàppe ko nii mooy opposition bi waaw waaw sur quotidien ne atew imam ndaw day kaa nga ca de libération yi ne ne Lac Rose bañ defoon seen kër jihadis yi ma wër nañ ko ndomba de box sobi ne ginnaaw nag ba ñu ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay jihadis waaw ñaari bunkal nag ñoo ñëw kon altine muy Matar Joxaane ak imam Alioune Badara Ndaw ëppala jar naa bàyyi xel de li jara bàyyi xel kay laa seena mooy xiif gi ci biir réew mi gis nga insécurité alimentaire lu tolloog ñetti mënuñu koo defal seen bopp léegi ñetti yoon baree bari da leen tëj daanaka génn wàllu million ci sénégalais ëpp la lii tax na ba gouvernement bu amérique day parce que dinaa jàppale lu tolloo téeméer ak juróom fukki junni ci ay njaboot ñu ne dénni waay juróom-ñetti ci ay région mu fas yéene faa dugal ñaar fukki milliards ñoom américains yi dimbali leen lekk dee mooy nit muy région Ziguinchor Sédhiou Kolda Saint-Louis Kaolack Matam Kaffrine ak Fatick <laughs> nak sa bop ngay nax bo paré mané la aladi tejeul samsung ak sen téléphone thank you